da jëf mbokk yi ñuy suivre ñu ngi leen ni nuyu di am mbégte ci ñëwaat ci sunu kër gi di people 221 di ñaan sunu réew mi yàlla na sunu borom dolli jàmm. di ñaanal sunu kilifa diine ak sunu kilifa aada yi di ñaanal sunu jour yi raay bi nga xam ne moom la ñu war a dem jongante ji yàlla sunu borom defal ñu jàmm ak salaam. ba ñu dem jël ko ci jàmm indi ko ci jàmm ñu bëggee comme ni ñu ko defee woon ci Coupe d'Afrique bi. tey nag ñu toog ak koo xam ne kenn dootu ko présenté ci réew mi mu di Zoukana wala Sokana fas yéenee waxtaan ak moom lu bari ci actualité ak tolluwaay réew mi bàyyi nga nuyoo ñu lay suivre. oui maa siyaar ñoom salaamaaleykum wa rahmatullah mhm. di siyaar sénégalais yi comme ça waaye nu mu ko waxee. di siyaar waa people 221. Mhm. di siyaar mbokk internet yi di ko seetaan di ko déglu. Mhm. waaw di ñaanal di ñaanal suñu joueur yeeg ñëpp ñuy représenté version rouge bi waaw di ñaanal yàlla musal leen si cat ak balaa. jàmm fi may fi may njëkkee gars yi nag nee nañ temps yi sawaay dafa fair play depuis bi ko gars yi tàncee ko indiwaat ko ba tey da nga da nga da bi kenn déggatu lu xew. man fair play yow man ba léegi maa ngi si digg njàng tak mu amul soos bi de man dama ragal dërëm fair play luy fair play <laughs> fair play amu fi de tey la gën a xaat tey la gën a xoot. Ah. li Ah, mooy dama tàng parce que nit ku ñuul laa. Mm-hmm. you am I'm hard cause I'm black. Mm-hmm. bi hee cause I'm naa. Mm-hmm. represent Sénégal. mooy dama tàng nit ku ñuul laa. te damay def lu métti. parce que Sénégal laa dëkk. tey laa mu sët tey laa gën a nekk ruel nekk. kon li doon wax daan naan sa waay dañ ko dañ ko dañ ko iriwoon ci ruq génnewaat ko. amul amul man mënuñu ma jeel si loo xam ne dafa ma dara may ñëw di génn ragal dama gën a am fit. si li may jéem tànk yi ma doon teg dama fay teg trente. wax yi ma doon wax damay gën a wax real talk xam nga Pac da doon wax booy Tupac da doon wax gars yi don't push me to be a killer hmm. bu ñu ma poussé ma nekk raykatu nit am naa rek killer but don't push me to be hmm. man du ma raykatu nit mais bu ñu ma poussé ma nekk raykatu nit hmm. essence yi loolu laa toll don't push me to a killer man ragaluma dara yàlla rek laa ragal fonk yonent bi respecté samay kilifa diine sama yaay ak sama ragal. mais ba léegi maa ngi def ay boo demee Dakar Street Live DK Street Live. ba léegi maa ngi def ay vidéo ak ay émission si mbedd bi si gëbla bi fi ma buujoo. di wax si taan bi ni mu méttee. injustice bi ñuy dund. li ñu nguur bi di teg te yàlla teguñu ko. d' accord d' accord kon dinaa ñëw foofu kon gaa yi doon wax sawaay daal tey la waalo gën a ay dinaa ñëw euh, fi ma njëkkee naka nga jàngatee euh, wuyu ji Sonko barki démb bi ban analyse nga ci def. mais wuyu ji Sonko barki démb ñëpp xam nañ ñu mu demee gis nañ ni mu demee. Mhm. wuyu ji boo xam ne dara nekk fa. Mhm. fu mu mujj. Mhm. ñibbi na këram. si jàmm. mooy man bi ñu ma jéemee accusé di ma tuumal fu ma mujj. Mhm. maa ngi nii toog si jàmm. Mhm. Ousmane Sonko ñëpp ko xam. Mhm. peuple bi la fi nekkal. président bi la la fi nekkal pour peuple bi. mais nekkatu fi pour peuple bi moo tax gars di wax si ay waxam. parce que Sénégal dafa metti tàng na. dara amuñu ko. man how many years maa ngi job ay 25 years maa job maa ngi xosu. si mburu bi. mais boo demee si gëbla bi banlieue bi gis nga lu ñuy dund. Mhm. yéen xam ngeen nu mu demee yéen journalistes yi. Mhm. yéen journalistes yi sax amatoo leen jàmm. Mhm. gars yi liggéey sax bëgguñu bàyyi ngeen def mais Sonko ñëpp xam nañ nu mu demee. fu ne yóbbu nañ ko fu ne. ba tey. xam nga ñu gën a bëgg Sonko man man kaay ma la tey lan moo tax ma fonk Sonko bëgg ko. dama leen koy wax tey. yërmande bu ma am si nit ñi. yërmande. bu ma am si nit ñi ak lan tolérance bu mu am si peuple bi. ak li mu jotee nekk si. administration pandaa ay anne quinzaine d'années. Mhm. ñu ko tuumal si dërëm. Mhm. kooku bugg naa ko. Mhm. gars yi dañuy nekk si nguur. dana nekk administration. un mois nga leen di gis deux ans ñu changé. ay millions wala ay milliards. gis nañ si ay exemple ñu bari foofu. mais moom xool ko nu mu mel. ni mu meloon ba tey noonu la mel. te ñoom xam nañ ko bu baax mais bugguñu ko delloo lu moom mais doomu aadama nag soo ko jurul. ah sàkkoo ko. de ko ñaan safaan bu baax. Mhm. mais yàlla bi ko sàkk ak yaayam ak papam mhm. xam nañ ñu mu doon. mënoon mhm. ñun peuple bi ñu bugg ko. d' accord d' accord tey gisoo ni euh, arrêté bi ñu arrêté ay garde kooram dina mën a indil euh, Ousmane Sonko tuuti ay jafe-jafe. duñ ko mës a indil gàllankoor taal bu yàlla taal nit mënu si dara. auzu billaahi mina seytaane rajiim. taal bu yàlla taal. kenn mënu si dara. Sonko yàlla moo ko def lim koy def. du kenn ku dul suñu borom. ak ay doomu aadama yi koy ñaanal. ak nit ñu baax ñi kilifa diine ak suñu yaay ak suñu pàpp yi. garde corps yi ñu jàpp. dañ leen di baayaat parce que lan leen leen jàppee. rey ñu violé ñu. dóoru ñu. saagaw kon kooku lu ñu leen di jàppee ndax lan sonko mais looy wane la yoon amul si dëkk bi. sonko dem na wuyu dugg ñu jàpp ay garde corps nit xanaa boo koy jàpp sax da nga koy wax jox ko mandat d'arrêt mhm. wala convocation. Mhm. mais boo ñu jàpp noonu mënoon nañ fipp foofu. mais dañ leen yar parce que dañoo déggal Sonko. parce que ñu bari ñuy jàpp ne li tax ñu jàpp leen mooy dafa am benn boucan bu amoon Mbour ñu identifier leen fii Dakar. mais boucan amul boucan chaque fois ñu koy créer mooy lan. Mhm. gouvernement bi ñooy créer boucan boucan yi fa la commencé. ñu jël suñu gendarme yi. jël suñu policiers teg leen ci mbedd bi ñaata heure. loolu rek coono bu ñu leen teg dafa metti jël gendarme jël policiers mel ni kuy dem mutinerie. Hmm. wala daa am benn genre ñu ne mutinerie moo am biir gendarmerie wala biir police da ngay naan ñoom ñooy xeex seen biir. Hmm. parce que ñu ñuy génnee teg ay char teg ay ndox oto ndox yu tàng. Hmm. yor ay kagul affaire te Sénégal benn nit ñu ne mooy wuyu ji. mais yow loolu dama lay laaj yow journaliste bi yow loolu la yéen journaliste yi lan ngeen si jàngaat si loolu. mais loolu jaaxal na leen. Mhm. mais loolu pour lan. Mhm. ñoom ñooy ñoo di violence. Mhm. mais waa ji yàlla da ko suturaal parce que waa ji dañ doon yaakaar ne day ñëw ne booy nañ génn def lu ñu def ñu créer ko ay trouble à l'ordre mais ut nañ ko fu ne. nañ ko bàyyi ngir yàlla ak bi. d'accord. d' ma ñëw ci euh, arrestation bu Pape Alé yaakaar naa suivre nga ko ban ban jàngat nga ci dem. bu baax waxuma la Pape Alé Niang de bu Sénégal ak bu monde kookoy Pape Alé yàlla na ko yàlla suturaal. Hmm. mais fan ngeen mus a gis journaliste d'investigation boo xam ne liggéeyam lay def. Hmm. tey si àdduna bi ñu ñëw jàpp ko buntu xatal ko nit koo xam ne da doon defar otom. Hmm. ñu ñëw rek policiers yi taw si rek. mais policiers sax war nañ sax rus. Mhm. mais koo xam ne du hors la loi. Mhm. parce que nekkul di saaga président comme ñoom ni ñu koy waxee. Mhm. walla di ñu wane ko ci mbedd bi mu ne day yor ay pistolet pour def ay affaire comme ñoom lu ñuy wax ay terroriste la. wala muy def yenn affaire yoo xam ne loi da ko war a jàpp. mais Pape la Niang lan la def. mais liggéeyam lay def. mais un journaliste àll le droit de faire son travail. parce que yow journaliste bi yow tey yéen yéen a ngi nii yow Malika nga jógee yow. Grand Dakar yaa ngi jógee Grand Town. tey bu ñu la ne woon yow da ngay jógee Grand Town wala kii Malika da ngay ñëw parcelle. ñu la koy tere nga fipp kenn warulu ko tere parce que nit ku nekk am na droit dem fu ko nekk ak wax lu ko nekk ci gémmiñam te du musiba te du ay balaa. Pape Alé Niang liggéeyam ñëpp a ko xam. bu ñu xoolee ay jamono Pape Alé Niang ñu taxawal mag yi nekk président bi nekk président si la bokk. yoo xam ne sénégalais xamuñu ko woon moo génnee si dëkk ba ñëpp àndal nag moom kon tey ñoom buñ ñëwee ba falu ne tey dañ koy jàpp lu leen neex lañ def rek lu leen neex mais doomu jaamur di nga ko jàpp nag teg na da nga koy fexel fekk da a may tur tey Pape Alé Niang ñi xamuñu ko woon sax mais booy bëri xam nañ kuy Pape Alé Niang exemple la journaliste yi nag dama bëgg ñoom ñu def mobilisation parce que presse presse mooy àddina comme étudiants yi parce que yéen kenn waru leen sonal parce que yéen a fi nekkal pour dëkk bi surtout journalistes yi nga xam ne Sénégal dama tàmm nañ ñu ne daa am ay journalistes yoo xam ne sax ay fake news lañ. Mm-hmm. mais booy nañu xoolaat seen bopp gars nañu xam ne àdduna lépp loo gis day jeex. mais Pape Alé Niang lan nga yaakaar ni moo tax ñu jàpp ko. mais Pape Alé Niang xam na ñu jàpp ko ndax lan neneen lan ay secret lay wax mais du ay secret amul luy dëgg dañ koy wax. Mm-hmm. lu dul dëgg la ñuy nëbb. Mm-hmm. mais dëgg kenn ko nëbb. Pape Alé Niang dëgg lay wax. ndax lan léegi ñoom lu ñuy wax moom bokkul seen côté du seen arrangé wu leen moo tax ñu jàpp ko. nañu waxante dëgg. li ñuy wax wala li mu war a wax arrangé wu leen. moo tax ñu jàpp ko. kon bu leen doonoon arrangé duñ ko jàpp. comme man li bi may def rek di def samay émission wala di def ay marche ñu ne soo arrangé ñu dañ koy jéem a tiital jàpp ko. Mm-hmm. léegi soo bu àndandoo ak ñoom ñu jox ko ay kàrkaar wala jox ay million après man jaratuma dërëm. Mhm. man honneur laay gémmee Pape Alé Niang lay gémmee. Mhm. parce que koo gis yàlla la yaakaar. Mhm. yow yaakaaroo kenn ku dul yàlla. may yàlla nag moo gën ay nit di la jox di la wili pande. Pape Alé Niang deful dara. nañ ko bàyyi mu dem wuy njabootam. dañ ko bàyyi dañ ko tooñ. Mhm. yàlla nag tooñ baaxul de. mais est loolu tamit taxul léegi daanaka ñu baree bari xaw a ragal pour génn di wax li nga xam ne moo leen naqari ak lu ñu dund. mais képp ku ragal day képp ku ragal yow gëmoo yàlla. nit mhm. boo gëmee sa diine. Mhm. gëm mooy fi nga bokk. amoo looy ragal ku dul suñu borom. xoxatal yooyu yëpp ay deuxième la. yonent bi salaay salaam moo gën a kawe looy gis lu ne def nañ ko. tey la gën a kawe tey la gën a humble tey la gën a nekk ku ñuy vénérer le nom le plus célèbre au monde mooy prophète bi ndax si dëgg ak ñàkk ragal dara suñu borom rek la ragaloon kon képp kuy roy suñu yonant bi amoo looy ragal ragal pour lan nit boo ragalee nga dee boo ñemee da ngay dee kon daal da nga jàpp ni Pape dañ ko jaay doole non doole lañ ko jaay affaire nguur ñëpp gis nañ ko mu nekk si otom policiers yi ñëw daw jàpp ko ñu jàpp ko yóbbu ko police après defeere ko ay mandat dépôt Sénégal lu tuuti ñu ne la mandat dépôt man jamono yooyu demoon naa kaso boo xoolee si kaso bi moitié boo yëpp mandat dépôt lañ leen yóbbu. Mhm. teguñu ko fenn. Mhm. article lan loo xam ne jigéewul si yàlla ñoom ñoo ko créé. Mhm. mais bu dee justice ñoom si dëgg lañ nekk. dañ fi nekkal pour ñëpp. nekkaluñu fi pour kenn. nañ tegu si yoon. parce que nit boo demee ba dana yow juge nga. nga ne yow da ngay procureur nga LP. wala nga ne avocat nga. wala nga ne régisseur nga. wala justicier. Hmm. da nga war a tegu si yoon parce que yow jour boobu ngay dem. Hmm. ñu lay jox diplôme bi. Hmm. honneur ngay joxe foofu ak sa dëgg. kon nit bu ñu la corrompre wala dina manipuler muy peuple bi. wala ñu ne nguur bee la manipule wala opposant ah ah. yooyu yaa woote dëgg justice. d' accord mais ñu gis ni Pape Alé ak fi mu toll ci réew mi ak li mu apporté réew mi bi li xewee gisoo benn wala bariwul ay télévision yu ci def ay tee débat di ci wax. te mu nekk journaliste nekk ci seen biir. mais ñi war a def tey débat mooy ñi la war a ñu dëgg ñu ngi koy def mais ñi nga xam ne ay fake lañ fake news yi mu lay wax. Mhm. duñ ko def ñi nga xam ne nguur bi fi teg. duñ ko mus a def. Mhm. Sénégal xam nañ loolu mooy propagande yi nga xam ne état bi lañ àndal. Mhm. xam nañ télé yooyu. bari na. te yéen xam ngeen télé yooyu. mais ñooñu dëgguwuñu mais ñun nag dëgg yàlla daf ñu koy may parce que Sénégal dëggu dëgg la. ñun xam lu ñu xam fii kilifa diine yi. instant ibnu Mariama. instant ibnu mariama looloo am Sénégal. leneen loo ñoddi gëmuñu la. mais télé yi nga xam ne ñoom dañ fi nekkee ne ñoom Sénégal lañ fi nekkee seen bopp lañ dañuy sol seen bopp. après tôt tard dëgg day am. ñoom ñëpp ñun ñoo leen teg si yoon. télé yooyu nga xam ne dañoo ragal a wax dëgg. ak journaliste yi nga xam ne dañu woote dëgg ak journaliste yi di xëy si fen. ah. loolu yàlla daf ñuy àtte ñoom parce que ñun fuñ tol nii. ñun xam kan lañ gën gëm ki nga xam ne moo tax nekk koo fi nekkal peuple bi. parce que peuple bi dañoo sonn. jël booy Pape Alé Niang dem yóbbu ko kaso. mais gars yi ñuy nekk si nguur bi ñoom ñoom lañu ñu war a yóbbu kaso. gars yi ñaata ne ñu ngi si town bi dóor mënuñ town bi. ah ku si nekk jàpp na leen si scandale bu ne. te ñu ngi noonu yóbbu ñu leen jël ndax lan ñoom ñoo aye ñoo nekk si nguur bi. booy bi lan la nekkaloon noonu si ñoom avant ñu nekk nguur. léegi ñoom nguur lañ mu leen wax seen secret wax lu ñuy def ñu ne dañ koy jël pour lan. ah pour lan. ñun ñu ngi koy geral de bàyyi ñu ngi koy waajal ay manifestation yu teng. Pape Alé Pape man soo kaana man maa koy waajal dajaleel booy PA ñu génn yor ay banderole def manifestation. Mhm. pacifiquement. Mhm. waaw te wala bu ñu ko kenn teree parce que ñun am nañ droit def takk suñuy écharpe yor suñuy pancarte def free Pape Alé Niang comme booy nu ma ko doon fële free soo kaana mhm. def ay interview ay vidéo lépp. te bu soobee yàlla dañ koy bàyyi. Mhm. tey la guddi aajuma suba la aajuma maa la ko wax tey. Mhm. ñun du ñuy waxantu sax. Mhm. du may waxantu sax man parce que xaw ma pen. parce que xaw ma parparloo man si dëgg laa judd Muhammadu Rasulullah lañ ma tuddee. ñu ma wooyee Alaya Sookaana. kenn gënuñu. man bokk naa si mbindeef yi nga xam ne. kenn gënu ma parce que mbindeef mooy lan ki yàlla sàkk. te yàlla doomu aadama la gën a fonk si lu mu sàkk. d'accord d'accord tey damay pause ci politique bi tuuti ma ñëw ci li nga xamante mooy euh, sunu gaynde yi. ay gaynde la ñuy doon bay laa yow mi diini. Mhm. yàlla moo ñu ko moo ñaanal le lion. Mhm. amal lion. Mhm. mais fi mu toll nii ñu bari xaw nañu tiit ndax sunu yaakaar bi blessé. Hmm. gis naa nga génn eh, bàyyi yow boo wax loolu day mel ni yow si propagande yi nga bokk tubaab yi nasaraan yi. tiit nee la ñun man ragaluma dara. tiit pour lan. man su ma tiitee wala ma ragal du ma julit. du kon da nga jàpp ni Sadio nasaraani nasaraani ñoo ko. Sadio Mané dara jotu ko. Mhm. faxas dóor yàllaay rey dara jotu ko. Mhm. Sadio Mané dërëm jotu ko. Mhm. tubaab bi ñoo def seen Sadio Mané seet nañ match bi. fuwal na si match bi tuuti gaañu na tuuti jug na moo jugal boppam sax génn dem. ñun xam nañ africain nu mel. we know black people. black people is strong. Mm -hmm. everybody know black African people. if you are black people you represent the world. mooy boo nekkee nit ku ñuul da am doole da ngay represent àdduna bi. Sadio Mané si gaynde yooyu la bokk si black yooyu la bokk. comme ñoom Martin Luther King. ñoom Malcolm X ñoom Nelson Mandela. bari nañ Sadio Mané si niveau boobu la toll. Sadio Mané yàlla da ko suturaal. yàlla bu la suturaalee. ay natt mooy am tuuti nii rek. instant yii lii nii cat bi yëpp lay yóbbu. seere yàlla catu équipe nationale bi yëpp dem na. lépp lu ñu waroon def si lu metti al yóbbu na ay bi. mooy Sadio Mané ñu ne dafa blessé. te moom déggoo si gémmiñam mun ne dafa blessé. wala déggoo entraîneur am ñu ne la Sadio Mané dafa forfait. parce que ay rumeur tubaab. parce que ñoom comme li leen dal seen joueur loolu lañ bëgg. France 90 pour cent ñoom ñëpp gaañu nañ parce que français yi ñoo communiqué boobu ñan la du français yi. Mhm. da nga dégg journal anglais allemand boobu Bild joxe ne. Mhm. wala waa Bayern na saa maanaam coupe du monde. Mhm. sénégalais yi nañ bàyyi ma rajax ñoom ñoo war a njëkk a jàppale seen joueurs yi. sénégalais yi moo war jàppale moromu sénégalais am. Sadio Mané gaañ na ñoom ñëpp tas ko estati estati déedéet. Sadio Mané gaanewul la ñu war a wax Sadio Mané dara jotu ko. temps booy da ngay fubal wala nga am góom suuf nga saamaane loolu la mhm. saamaan si ñankatang bu amul soos bi lay jógee mhm. tulkuna bi fële kaamaas fa lay bokk fa lay jógee mhm. ñaancoo la ñi koy ñaanal ñoo bari bu ko natt waroon dal sax natt bi day ñëw fente ko parce que kooku mun nañ ne bokk na si wàllu yu gën a saf Sénégal parce que dañ ko nomel temps rek prix lan Socrates ki dàq ko séddale si àdduna bi kooku yàlla koy jox cër kuy tabax ay juma tabax ay école te gars yi fi yor ay milliards tabaxuñu dara di ko def seen poste di ko jox seen mbokk. joxuñu ko peuple bi ñu ko yellool. ah. Mhm. saa maanaam dara da koy jot. Mhm. tus du ko jot. Mhm. eh boy Sadio. everybody eh, pray for you Sadio. we represent this color Sadio yow real nigga yow Sadio Mané li lay represent. ba pare di represent Africa. Sadio Mané na ko yàlla dafal jàmm. yàlla musal ko si cat ak balaa Sadio Mané ko yàlla taaw. munu xaw ma nan laa ko mën a qualifier sax. Sadio Mané. kon daal da nga jàpp ne lii pexey tubaab bi la. non pexey tubaab bi la pour pour bëgguñu pour bëgguñu xeex. lépp pour xeex Sénégal parce que ñëpp foo tudd ñu ne la Sénégal day sori coupe du monde. Mhm. ñoom seen jour yi sax boo posé question ñu ne la Afrique kuy sori coupe du monde ñu ne Sénégal. Mhm. temps alan génn na wax na ko. Mhm. keneen ak keneen wax na ko. kon tubaab yi pour ñu wàññi doole africain parce que ñun Sénégal mooy dëkk boo xam ne. français ñun dañu teg bët. ñun au ñuy dooleel suñu bopp mais da ngay gis suñu gouvernement yi suñu njiit yi nekk si association yi ñoom ñooy. tuutil sénégalais mhm. français yi wax seen benn wax rek ñoom ñëpp bugg si ànd mhm. ah mhm. da nga dégg anglais bi wax loolu man damay suivre football how many years maa ngi suivre football dëgg la dëgg la man xam naa football dëgg bu baax mais tey mais jii euh, ñaanuma ko yàlla tey jii ñaanuma ko yàlla est-ce que tamit euh, lii jotul gars yi teel ci jub pour ñu mën a récupérer suñu joueur ñu teg ko ci condition yu baax ñu dem ci coupe du monde bi non suñu joueur yi dañ leen di jot si AB moomuñu leen ay bi da koy parce que coupe du monde lañ jëm exemple la jour boo gis day am avalu dëkkam. même boo nekkee club bee lay fay moo la moom sax. bu game bi nation bi soxlawee. da nga ñëw si nation bi. instant yi nation bi moo soxla ku nekk day représenté nation am. d' accord d' accord mais absence su Saliou Ciss aussi est ce que mënul indil empêchement équipe bi. non Saliou Ciss man moom dëgg may yàq. Mhm. damay wax dëgg jour. parce ñun xam nañ we know ball parce que xam nañu sport xam nañu football. ci nga débuté sax bu ñu ah, fàttalikoo say vidéo waaw say vidéo yaa doon taxaw doon ah, tegal jour lu tar. di tegal mm-hmm. parce que Saliou Ciss ndeysaan rakk ji yal na ko yàlla suturaal. Mm-hmm. Saliou Ciss cata ko topp. waaw mm-hmm. ah, cata ko topp. mais nag suñu borom lu mu la xañ rek. daa am lu tax. te yàlla du xañe rek. da lay suturaal rek xañu ko sax. parce que jóge na fi ñëw Coupe d'Afrique jël meilleur latéral. toj kan bi. islam ni la chaque Coupe d'Afrique. daf may woo appel vidéo ñoom Saliou Ciss naan ma soo baaxul wala baax na ma ne leen baax na baaxul ñu xaqataay mm-hmm. àddina moo demee noonu gis nga dunia mm-hmm. mooy ma wax la lu intéressant si àddina mm-hmm. gars yi lu ñuy jaawale si àddina gis nga àddina yàlla mbay dénkaane ndeysaan àddina munoo sax yonent bi salaay salaam moo gën bu ñu sa yoon du dem Omar bi stop Aliou Ousmane Omar nga xam ne boo nee yonent bi feebar na wala dee na sax mu xàcc junni ba léegi mais yonte bi dem na. Mhm. Omar dem na. Mhm. Ousmane dem na Aliou dem na jàmbaaru góor yooyu dem nañ. Mhm. mooy lim la wax rek wërsëg. mais mais dafa am mais aussi Saliou Ciss ak li mu def daaw ci ci qualification bi. xaaral ma ñëw Saliou Ciss dafa nekkoon compétition nekkoon si club di football ñu convoqué ko équipe nationale parce que équipe nationale boobu bu ñu lay convoqué. dafa fekk nga nekk ci club. soit nga nekk Afrique. soit nga nekk Europe fu nekk si àdduna bi. ngay def ay performance mais soo nekkul compétition nekkoo si club buñ la convoqué rek foofu mun nañ ne. par par loolo waaw parce que injustice baaxul. Saliou Ciss ñëpp xamoon nañ la doon fubal si clubam. ñoo ko mu toj. instant yii Saliou Ciss yéen journaliste xam ngeen ne fubalul. dëgg loolu mu ngi fii Sénégal. est-ce que xam nga lu kon Saliou Ciss man nekkul maay convoqué suñ ko convoqué wul. ndogal day am mooy lan day nangu ndogal parce que Saliou Ciss nekkoon na di fubal fubalatul. Mhm. coupe du monde rek yemul si fubal. Mhm. mais Saliou Ciss man lu mu koy digal na xoolaat boppam xool ay agent am. Mhm. parce que Saliou Ciss mënul jël meilleur latéral Afrique. amul club ak addina ay Tunisie ay Maroc sax ay am na. mais agent am nu mu dee dee moom médaille coupe d'Afrique la étoile bi mooy ngi nii lii la am lii. étoile ñun ñu ngi door am étoile d'or. kon Saliou fu ñu yóbbu ay affaire am dañ koy jël par force. Mhm. Saliou Ciss nag bu mu xool agent yi agent yi seen intérêt la ñuy xool moom da xool intérêt am. Mhm. Saliou Ciss sama fils la sama rakk la. Mhm. si ma bi la bokk mafia néeru doole yi. te dama koy ñaanal bu demul coupe du monde yéen yii yëpp da koy fekkee. ba yàlla may ko muy fubal sama club man yu. man man yu mooy sama club ama bleu. bleu. mooy dërët man fa bokk. man ñu bëleet lañ. d'accord tey tey ñu ngi may signaler li ma mayoon ci ay waxtu daanaka léegi mu jeex euh, tey sa analyse ci tolluwaay réew mi ak li gars yi di dund. réew mi li mu la wax de képp kuy jéem a teg réew mi yaa koy suuxal yooyu yaay suux. Mhm. Sénégal du dëkk bu ñuy suuxal. gaal bi benn la fi laa la ñëpp xaj nañ ci. Mhm. wala gaalu maare. Mhm. fépp lay dem ñëpp xaj nañ si ku koy joow muy mafia néeru doole yi. ajana force. Sénégal temps bi nu mu metti metti metti metti kenn mënuñu tere jaamu yàlla. muy soit jullit nga wala instant ibnu mariama ñun lool lañ xam de ñun ay ñun ay croyants lañ Sénégal amul pays laïque du dëgg. Mhm. yàgg naa ko wax dama gars yi si baal si wax boobu dañuy fen mhm. Sénégal du pays laïque pays croyants lañ. Mhm. parce que 100 pour cent ay croyants lañ jullit chrétien moo fi am. Sénégal du temps bu ñuy suux temps bi métti na gars nañ jàppale booy yi. nañ jàppale ndaw yi. foo dem si banlieue bi dafa métti demal Pikine dafa tàng métti. nga dem Malika dafa xaat. moo raw fépp nga dem Diamaguène dafa xoot. Mm-hmm. ah nga dem xamatul lan la. Mm-hmm. nga ñëw parcelle mu teng. Mm-hmm. booy dañuy yeewu si soo kaana la ñuy dem. parce que sookaana mooy borom yërmande bi. dam koy bokk ak ñoom. ñaar dërëm bu ma am dam koy bokk ak kaana ak booy yi. parce que sookaana borom yërmande la borom toléré la. di ñaanal nag sama booy mooy lim la rek. booy kaamaan yi nañ xoolaat seen bopp. képp ku nekk si diaspora bi. xam nga Sénégal nu mu demee ñoom sax ngàcce ngaalaama si ñoom parce que ñoom si peuple bi lañ far mais kaamaani yi far si gouvernement yi ay def yaay lañ mais kaamaan yi far si peuple bi li ñuy dund metti na nañ jàppale seen rakk yi mhm. booy joueur professionnel yi mhm. xaalis yi ñu yor bari du jeex nañ ñëw jàppale booy si gëbla bi métti na taal bi boo demee si banlieue bi da ngay jooy sax boo dañuy yeew taw sax duñ ko am da ngay gis góor yàlla boo xam ne dërëm du ko am man damay dugg si banlieue bi mhm. damay joxe mhm. te man yoruma mais damay séddale parce que yàlla moo demee noonu isa mhm. xam ne la gars yi nañu yërëm sénégalais yi bi métti na parce que ñun dañoo cenc dañoo bëgg suñu réew jëm kanam sénégal am na lépp jàmm ji fi am rek mooy ñun milliardaire ñu war a doon zircon or pétrole phosphate loo xalaat gaz géej wër ñun mënuñoo am dara 17 millions lañ. Hmm. ñun ñoo waroon nekk les pays le plus riches au monde. Hmm. note bi dafa doy. Hmm. bi waxaat nag sunu homme de tenue yi nañ xoolaat seen bopp bu baax. man mënu bàyyi wax boobu. homme de tenue yi seen xoxotal bi na nañ ko arrêté. seen bopp la ñuy xoxotal parce que seen rakk yee nekk si mbedd bi de ak seen nijaay. homme de tenue yi parce que nit boo nekkee homme de tenue yow honneur dëkk la moo vergeur rouge. su muy policier nga muy gendarme. gendarmerie mooy corps justice. gars yi yàq suñu gendarmerie. armée bi ngàcce ngaalaama sama booy para mhm. yi militaires mhm. yi commando yi mhm. naa si gang booy nekk si mission fépp si àdduna bi ñu nekk Darfour fépp fu sénégalais booy ay gaynde lañ gars yi na ñu yërëm gars yi nañu bàyyi seen yu ñuy def ki ñu teg naan yow ministre nga da ngay jéem a joxe ordre ñu jàpp ñu wala pour ñu kii yow xolaatal sa bopp muy foo nekk si ministériel. nga ne yow da ngay diriger. si jàmm ngay diriger nga ne da ngay yónnee ay nit pour ñu jàpp doomu aadama te yow bu ñu jàppal sa doom du la neex. gars yi nañ xoolaat seen bopp doomu jàmbur ñuy jàpp nañ leen bàyyi. parce que kuñ si jàpp sa doom nga dee doo nelaw. ku si jël sa doom yóbbu xasa doo nelaw mais nag dañ teg ne ñoom ñooy ay chaque jour. sunu borom mu ñuy gis. te yéen journaliste sénégalais yëpp journaliste képp ku si bugg wax ak Sokane. si dëgg ngay wax ak Sokane ku si ñemewul dëgg bul wax man. man yow sama rakk nga. Mhm. moo tax man maa leen bëggal seen bopp yéen waa 221. parce que mënoon naa ñëw i ñoo di leen xaalis man mhm. góoma yooyu. Mhm. man boo tegee xaalis damay fente. est-ce que am man dama yor mafia nee du doole yi. est-ce que am na loo mais man samay bay rofon maa koy gémmal sama bopp. parce que aw ma de mais am naa nit ñi. Mhm. mais nag yéen journalistes yi far leen seen biir. Mhm. ngeen di wootante di wax dëgg. Mhm. parce que town bi day change de yàggatul de. I'm telling you we change the town we gon change the man nag maa siyaar sama booy nekk Seets. parce que États-Unis laa ëpp mafia. sama booy nekk Seets ñi nekk New York. moo nekk nii mooy li ma ah. mooy New York. <laughs> ñoom booy Papis booy Get Rich uh, Koo di Boor lañ booy nekk New York ñi nekk Ohio Columbus. est ce que xam nga ñi nekk si Cincinnati nekk Detroit. Mhm. ñi nekk Houston. ñi mhm. nekk Atlanta. Mhm. gang laa yor seet foo dem états am naa fa gang. di charab sama booy Sasa Quincy ñoom 50. booy nekk si jeel bi yeah booy nekk si jeel bi surtout jeel bi man ama jeel man before ama jeel man. but right now ama free boy. all we represent jealous people mooy ñun jelmaan yi la ñuy représenté. Mm-hmm. freedom fire gars yi may leen ko parce que jël bi métti na gars yi nañu bàyyi booy yi. Mm-hmm. juge ak procureur yi bu ñuy juge mm-hmm. néew di doole yi. tolérance bi dafa war a am. même bu doon ay defkat lañ sax nañu xool nu ñu leen di xelpee si maayel. Sénégal teg na mais Sénégal yàlla ñu yàlla suturaal. Sénégal yàlla ñu yàlla may ndam yàlla ñu yàlla may ndam coupe du monde dañ koy jël. gars yi bu ñu bluffé Sénégal Sénégal mooy Sénégalu àddina. mais am na benn am na benn femme bu ni coupe du monde bu ñu bëggee mu ñëw il fallait que ñu génnee saraxu ndel. bul ma wax ay waxu ñooñu man yàlla laa gëm ak yonent bi man góoma yooyu. muy nañ génnee ndel. yooyu yëpp propagande la <laughs> propagande dafa bëri ay façon suñu borom moo sàkk àddina mais melo yi dafa bëri. mais saraxu ndel. man Casamance laa dëkk Serigne fa la ñaay. saraxu ndel tamit mën naa indi coupe bi de. ñaaral si tulukuna bi laa dëkk. <laughs> mais suuf saraxu ndel booy juddu lu ñu lay wat. ndel jeex na kon bu ñooñu man bul ma wax ñooñu ndel bu muy am saraatal mustaxim la muy si julit muy si chrétien maanaam est-ce que femme yooyu dañ dem uti jëkkër moo gën gimin yooyu nga may wax bul ma waxu gimin yooyu ay ñooñu man la soo kaana ak mafia bi wax naa la ko man la soo kaan ak mbedd bi man la boroom huut bi represent the street man la mindeef bi ki nga xam ne yàlla moom la gën a fonk mooy nit mooy ñun mm. mais bu ñuy wax ay waxu sëriñ bi nee na ay kii déedéet man góoma yooyu mm. kon kilifa diine laa gëm. Mhm. te yàlla na leen yàlla taxaw may leen. amiin yaram ak gudd fan. dégg naa amiin leen yàlla may gudd fan ak wér gu yaram mooy suñu sëriñ yi. mooy abbé bi. Mhm. muy prêtre bi. Mhm. muy ñëpp. instant ibnu Mariama Sénégal julit chrétien moo fi am. kenn mënu fi ñor di leen. dégg naa trop. man bëgg naa si yéen yéen tamit a bëgg maa gën a bëgg. waaye mu ngi noonu moo nekkoon sunu invité tey vraiment. xat na trop nag mais dama ko woo mun ma yow sama frère nga yow jërul ngay tàggatoo ñëwal lépp lu mu jàppoon daf ko bàyyi recevoir ma ñu waxtaan nii lay demee people 221 ji leen dox yeneen dig daje suñu yeneen émission jërë jëf.